waaw mbokk yi ñi nga xam ne du a doon déglu yokku rajo depuis un certain nombre de mois maa ngi leen di yëgal que yokku rajo léegi jóge na ci plateforme bi di Spreaker dem ci site yi boppam site bi nekk www point yokku rajo point com ma waxaat ko www point yokku rajo point com yokku rajo nag comme ni ngeen ko xamee dama bëgg mu nekk rajo pour africains yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Italie waaye aussi italiens yi nga xam ne ñoo bëgg a xam Afrique ak ñun africains yi lan mooy suñu aada lan mooy suñu réew lan mooy suñu doxalin di leen wax ne yokku rajo dina euh, émettre ci internet ci langue yu bëri muy wolof bii ma leen di wax ndax pro prévoir nañ benn programme émission boo xam ne chaque dimanche soir lañ ko bëgg a def

pour yombal seen nekkuwaay fii ci Italie waaye aussi ca suñu réew bañ jógee yokk rajo loolu moo ko jógloo dinañ ci waxtaan di ci def ay programme di ci def ay émission kon nag mbokk yi ku soxla déglu yokk rajo léegi nekkatul ci plateforme bii di Spreaker da ngay def www punto rajo point maanaam www point yokku rajo point kon nag mbokk yi seen xarit Baye Diouf Nous avons rendez-vous chaque dimanche yéen ñi Nous wolof déglu émission yi une lañ bëgg émission yi li ci ëpp nag luy orienté ak luy euh, euh, informé ci dund ak lu ko a jëmal waaw kon tax ñu ñun dañoo di nit ñi à bientôt chaque dimanche après-midi waaw ñu ngi liggéey ci programme bi su waxtu wi jotee dinañ ko yëgle publicité ko yéen ñëpp ngeen déglu ko jërëjëf et à bientôt